ginnaaw bi ni génne kaso ñooñu Ousmane Sonko yi si Touba di wuyoo maam Ndam Lo ak Bada Ndiaye ñoom ñaar ñi kat te ji leen gën a feddali seen kóllëre seen ginnaaw leader ndaxte jàpp nañu ni kat bi nekkee si ay jafe-jafe nim si taxawee tax na ñu gën koo gëm bu ñu sukkandikoo si maam Ndam Lo kenn si ñoom mënuma wax tamit euh, duma ma gërëm ñi nga xam ne ñooy suñu avocat yi Euh, commencé ko ci maître Sow euh, maître si Ba ak ki nga xam ne mooy maître Théophile ak maître Tall ndaxte kat ñoom bi ñu jàppee fii laataa ñuy egsi DIC commissariat bu DIC fekk nañ leen fa ñu toog Ousmane Sonko yabal na leen ne leen dem ngeen xaar leen ndax am na sama ñaari militant yu ñu jàpp loolu di wane ne rek am na lu fi daan xew ci politiciens yi te moom nekkul ci moom muy kan yi gisoon naa fi ñoo xam ne 2012 dañ doon xeexal Macky Sall dañ leen a tëj 5 sax am ku leen seet si waxantuma laa leen wutal avocat loolu di wane ne rek encore une fois Ousmane Sonko bokkul ak ñoom nuroowul ak ñoom politique bi mu woote kon bokkul ak moom ndax kenn mësul gis koo xam ne sa militant yëpp da nga leen doon wër kenn ku ci nekk nga ne avocat yi kenn képp fu waay nekk na nga fa dem ñun man ak Bada xam nañu loolu ndaxte duñ toog deux minutes commissariat bu ñu nekk nit ñëw ne Ousmane moo ma yebal ndax diw ak diw mi ngi fii. waaye nag ndaw yi de ñu ngi ñaawlu nguur gi. bu sukkandikoo seen kaddu. lii mu te maanaam fii si Touba jël xaalis bu bare ngir nag jël seen ay militant loolee tamit jàpp na nañu ni du mës a nag antu. jamono jii ñu toll Macky Sall amatul beneen pexe bu ko desee bu dul wër di ger ñi nga xam ne ñooy ànd ak Ousmane naan saagaal nit ñi Serigne Matar Niang mais nga xam ne naa dem ba doon xalifab kër Niang ku démb lañ ko seet si yëkkati vingt millions quatre quatre ne ko dama koy jox mu ne leen billahi wallahi taalaahi laa reere laaxu caaxaan moo ma gënal jël seen leen def waaye gore am ba tey gore nga am ba tey ba da njaay mii nga xam ne moom laa bokkaloon kaso bi muy ko am jom ndax dañ koy paqueté doodu wax dara moom ko am jom la maa ko mën a seede mi ngi nii seet si nañ ko ne ko saagaal Ousmane Sonko pour ne damaa juumoon ci yëf yi ngir ñu defal la loo gë waaye waaye waay Bada dafa bañ. ki dëggal lu nu mel di kenn suñu nu jàppoon Bada Ndiaye moom jàpp na nii seet si nañ ko ak it ay moom waaye du wéy. bu ma jógee fii di ñibbi sama kër saret laay dugg mais 15 millions yooyu fukki dërëm yi may passé saret moom ma ko gënal parce que àdduna du neex ba ñu mas a jaay suñu ngor encore une fois dama koy wax ni fii kuy jaay amu fi ku am njëkk amu fi sëñ Cheikh Thioro mi bi ñu koy proposé 80 millions di ko proposé 4-4 suñu kanam la ñun ñii ñëpp mu bañ. Euh, sëñ bi toog li mu wax ñun ñëpp dégg nañ ko. ñoom waa Pastef bu Touba li ñu gis ni kat jamono ji moo leen iteel mooy fexe ba seen parti bi jëm ca kanam ndax nag jàpp na nañu nii nit ñu jox na leen bopp te nag dinañ si profité gën a yaatal bile parti Babacar Samb Touba Africa set